sëriñ bi xam ne nag Gabon de suul naa fa loo xam ne yàgg yàgg dara feeñ xam naa xéew li ñu am loolu ko fandi raditu kuréel gi taxawal caravane Mayomba ca Gabon di jaar-jaaru Serigne Touba foofee ca Gabon ñoo am yéene liggéeyal Serigne Touba ca Mayomba jumaaw ak it institut islamique waaye tamit kër Serigne Touba li ci won ak mbokk jullit yépp mbokk taalibe yépp ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides. mu ne mi ngi rafetlu taxawaay bi di ci am mbégte bu baax a baax. neen di leen ñaanal baax. suñu borom gën leen a gàttandoo ak tawfeex Sëriñ Tuubaa. ba ngeen gën a mën a nekk liggéey bi. gën a dundal sëriñ bi gën ko dundal ci taalibe yi. Mhm. loolu rek mooy liggéey. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax moo leen fi ba ci ndigalam ngeen fi ñëwee itam ak bokkiteel bi nekk Gabon bàyyiwuñ kenn di leen sant di leen gërëm ci xalaat ak liggéey bu rëy bii nga xam ne Gabon moom ku ko xam xam ne mooy yoonu murit ndax boo mutoon tey jàmm ji ñu nekk duñ ko am Gabon moom dafa bokk ci bari bi suñ tuwaay rawatina foofu ci Gabon kon sëriñ bi nee na mi ngi ci soññi mbooleem njabootu Cheikh Ibra Faty gépp képp kuy dégg kàddoom wala ngay dégg wala ngay diglu ndigalam wala ngay diglu bu waxee nga def bu teree nga bàyyi nee na mi ngi lay soññi ci mbir mi te foo man di nekkit nga def ko ni sa mbirum bopp di xam seen jëf ak seen pastif la ñu nekk noonu ci réew ma ci Gabon dafa murid yi nekk projet bi day jëmmal seen jëf foofa ci liggéey ci dëkk ba nee na mi ngi ñaan nag yoonu murid yëpp ànd ci te jàpp ci liggéey bi kon nag yoonu murid yëpp ànd nañ ci kon waaw ah, ndigal li sàkku sëriñ bi jox na leen ko waaw ah, fas yéene ànd ak yéen nag sayr ak baatin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 lépp ngeen ci bëgg rek ci saayir ak ci baatin yàlla defal leen ko suñu ndigal ànd naa ci de ndax ni ci sëñ Muntaxa àndee de dinaa ci ànd may itam muy suufu sëriñ Touba ñu war faa taxawal juma hmm. taxawal fa daare soxna jaar hmm. eh, loolu moom defe naa ne <laughs> yàlla ko yàlla sotta rek képp ko bëgg lu baax bu ko déggee dana ci dugal loxoom ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ nag ñu bokkal sëñ Touba ñëpp kon nag képp ku yaakaar sëñ Touba tey doxe Pastef ñu ngi la ciy woo def ci saw ñaq mbokk ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey bi moo xam suñ mbokk yi nekk ci réew mi la ñu ngi leen koy yëgal den ko bàyyi loo xel na ñooy taxaw mbirum saayiru réew mi ko mel ne ki nga xam ne moo jiite réew muy Mouhamed Bachir Diomaye Faye nga xam ne mooy président de la république di jiital réew mi noo ngi ko koy yëgal bu baax président Ousmane Sonko moom itam ñoo ngi koy koy yëgal. ña yéen taalibe yi fa nekk bokk taalibe yi fa nekk laay wax. nañ ci góorgóorlu def ci gën ci def yitte te gën a booloo nekk benn te xam ne le Sëñ Abdou daa wax daa wax ne foo déggee ñaar ñuy xëccoo adduna li ñuy xëccoo waaye xajaat ma penk bi damay jul doo ko dégg ko kon ñoom itam nañ xam ne Sëñ Tuubaa leen boole liggéey Sëñ Tuubaa bi leen boole nag kon dara wut leen tàggale ndax taalibe yi rek moo leen boole kon nañ xam ne liggéey Sëñ bi lu ci waay man rek na ko ci kon nag ña fa ne ñëpp ñu ngi leen di gën a digal ñu gën a góorgóorlu kenn ku du xool Sëriñ Tuubaa ci sa morom. Euh, ñu ngi woo nag mbokki taalibe fa nekk yëpp ci kuréelu daayira yi ak yëpp ci liggéey boobu woote boobu nag ñu ngi ci jiital sëñ Abdourahmane Mbacke ma nga xam ne moo tooge ca kër sëñ Touba di ci toftal sëñ Baraka moom it ci ab taxawaayam ak sëñ Massar Gueye ñoom sëñ bëgg saalu ci liggéey kër sëñ Touba ga ñëpp bàyyi kenn mboolem ku nekk Libreville rek ak sëñ Jili Fall ma nga xam ni moom moo fa toogal njabootu maam Cheikh rek yëpp kon daal woote bango kaddu sëñ bi jib na sëñ koso ni mu ci jotlee kaddu ngir leeral ko ngir mu gën a agsi ñun it xam nañ ni liggéeyub sëñ Touba te liggéeyub sëñ Touba moom njabootu sëñ Touba gépp ñoo war a rek jëm ay ca liggéey bangoog ñoo ngi si nag soññi ñëpp fàttewuñu si kenn bàyyiwuñu si ñenn na si ñëpp barkeelu bu ngeen si bëggee nag ay leeral mën ngeen wootee si numéro yooyu noonu affiché su ko defee sunu ay ndaw gën leen leeral taxawaay bii nga xamante ni kuréel gi am na ko ngir liggéeyal Serigne Touba ca Gabon Mayumba